alors euh, bu waxee ci jàmm wax ci justice yow leneen lan nga mën a xaar ci discours bi te président wax ko parce que yaakaar naa ni jàmm ak justice ñoo tënk te ñoo yor réew. waaw euh, xam nga tey jii durée bii boo ko defee ci ñaari mandat c'est vrai boo ñëwee nga ne en toute humilité euh, seen suffrage yi ngeen ma joxoon. pour ma mën a jiite réew mi tey toll naa fii maa ngi leen di jaajëfal mais attention. Mm. dafa am benn point boo xamante ne c'est important mais parce que waroon na ci wax pour man waxu ci mooy àq bi nga xamante ne tey digganteem ak sénégalais am na ci en tant que chef d'État dañ fi bàyyi ñëpp moom kese nekkul woon candidat ñu bari wóolu ko une partie de la population yi nga xamante tey. Euh, naam amoon nañu gis-gis bu tax ñu war ko mën a voteel mu am tamit une autre partie ba nga xamante ni amoon nañu seen gis-gis bi tax voteel ñu ko mais en tant que chef d'État moom dafa waroon xam ne il est pour ñi nga xamante ne ñoo ko sànniloon carte pour ñi nga xamante ne sànniluñu ko carte il devrait être là en tant que chef d'État bi nga xamante ni dafa war a njaboote ñaar ñooñu ñëpp gouverner leen waaye nag li ci gën a am solo mooy mu xam ni àq bi nekk ci digganteem ak sénégalais yi nga xamante ni ànduñu ak moom ñu si ëpp wala bokk ba ci sax ñi nga xamante ni ñoo ko sànnil carte ñu si bëri tey seen xool seddul neex naa nat wala bokk neex naa firnde la koy waral mais vague d'immigration clandestine bi nga xamante ne tey moom la ñu nekkee ci réew mi ku ñëw da nga naan Sénégal neex na ku ñëw da nga naan naataange baa ngi fi ku ñëw da nga naan est-ce que sénégalais yi seen poche diis na est-ce que ñu ngi lekk ba suur est-ce que ñu ngi naan ba màndi est-ce que dëkkuwaay bi baax na est-ce que dund bi cher na wala cherul est-ce que xam nga faju boo xoolee daanaka en Afrique de l'Ouest presque Sénégal la gënee metti et pourtant ñu ngi ñuy yuuxu naan ñu on a des infrastructures ci biir discours am infrastructure yoo xamante ne hospitalière naam <laughs> waa mais yaa ngi am ay cases de santé ba tey alors que dañu war a juge ci loolu ay poste poste de santé yi nga xamante ne moo fi ëpp tey. dañu ci war a juge baal ma ñëw. même bu fekkee tey ji dafa am amélioration. est-ce que xam nga tey santé lu muy coûter au contribuable sénégalais te rek scanner boo ko bëggee def ñëwal au service des urgences tey am na situation bi fu mu toll. xaalis boo ko yorul duñ la sax registré cest à tey duñ la sax defal benn fiche comme quoi que ne tey am na patient bu ñëw taxaw. alors que le principe voudrait pour un pays qui aspire au développement la nga xamante ne mooy les éléments de base mooy manger à sa faim avoir un logement décent avoir un pouvoir d'achat bi nga xamante ne ça te permettrait de de de de d'assurer les trois repas l'éducation des enfants l'éducation des enfants aujourd'hui coûte le tiers du salaire aux contribuable sénégalais rien que tes deux enfants facilement peut te coûter cent quarante-cinq mille maternelle bi waxuma ko kay soog a am CFE entrée en sixième waxaalew na ko ki nekk étude supérieure kooku su ñëwee ça veut dire que da ngay asphyxie financière ci ngay nekkee parce que ton la financier ne te permettra pas doo am mënul confortable alors dañuy war a noter dans un premier temps que borom kër mënul dépenser plus qu'il ne gagne pouvoir d'achat yi baaxul salaire yi baaxul il faut créer les conditions pour que aujourd'hui le sénégalais mun a am un logement décent dëkk fu baax pouvoir manger à sa faim su feebaree mën a faju l'éducation de ses enfants ñu mën ko wax mu soog a épargner. Très bien.